partenaires yi ne ci biir réew mi mbégtem safar xam nga ni départ nanu émission ba bangoog ñaanal xalifa bi sëriñ Mouhamadul Muntaqa Mbacke xalif général des Mourides mu yàgg fi te wér sëriñ Sidi Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Dam Atta Mbacke sëriñ Basiru Abdul Xaadir mu ngi koy nuyu sëriñ Abdou ay Soaibou waaye sëriñ Abdul Karim Mbacke bu ñu leen nuyoo ñaanal nañu njabootu Cheikhul Khadim gépp noonu la ñu nuyoo sëriñ Babacar Si Mouhamadul Mansour xalif général des Tidiane ak njabootu Sidil Hadji Malick njaboot ak ëttu kër yi diina rek bàyyi kenn mbokk yi bàyyi kenn weeru mbégte la mbégtem safar ak télévision Futur Média daa ngeen bég fi ñëwee mu démb sëñ Gana nuyuwaat naa la. maa ngi lay fay di nuyu waa réew mi di ñaanal Cheikh Mamadou taxa yàlla sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi ak yéen yëpp mu àggale ko di ko ñaanal mbooleem njabootu Cheikhul Khadim ak mbooleem kilifa diine yëpp ak mbooleem jullit yi. am ñu mbégte mbégtem safar ak télévision Futur Média démb yaakaar naa nuyu woon sëriñ bi. rasulullahi yàlla jaabante bi Ahmadu jaabante digganteem ak boroomam digganteem ak yonent bi ni ko yàlla teg tegtale rasulullahi mu ñëw ci yonent bi yonent bi woo mat ko jëmewaat ko ci yàlla mi sëriñ na diggante boobu kenn xamul lu mu doon. kenn xamul diggante boobu lu mu doon elage muy diggante boo xam ne bu bu yaatu la. mais lal cofeel goo xam ni booy déglu booy liir mbindum sëriñ bi da ngay sax jaaxle. da ngay fekk loola xam nga loolu. maa ngi la koy wax démb ci xasidaam googu mu tudde taiya nga xam ne Touba la ko binde waaye xasidaam gi da koo tudde noonu ya yaa ngi waxoon ni fii ci Touba la ko binde Touba la ko taalif fi kër sëñ Soxaybu kër sëñ Soxaybu ne noonu la taalife geneen xasida ko tudde noonu ya muy xappaa ba xal bi ya lamman lahu sallamani min al ida wa bi dat xatti dan bi akramani nga xam ne yàlla dalal na sama xel teel na ko seral na sama xol bi ma muccalee ci noon yi oh. waaye aada u daaxili yi lay wax annafsu alcheytaan wa walhawa lama allahu sallamani min al aida wa bi xatti dan bi akramani da am na yeneen noonu yoo xam ne duñu ay nit duñu ay nit boole moo xam chayatinu jinni wala insi ahda yooyu wala bakkan moom ñeent yi la tudd an nafsu wa cheytaan wal hawa wa dunia te yooyu dafa wax ne dafa mucc ci saytaan mucc ci bakkan mucc ci bànneex adduna mooy sàkkoo mucc ci sëñ bi sëñ Tuubaa néewul maay daw adduna de moom it ma ngi ko waxaat ca miimiya wa cheytaanu xat faraxu min qasdi durriya lii dunya taxat salama nga xam ne kon léegi ñeent noonu yooyu yàllaa ko ko notal mhm. qaharta li nafsi qaharta li hawa wa suua wal idlala suxtali siwa yàlla notal ko bakkanam notal ko bànneexam notal ko adduna notal ko seytaan bi moo tax xasidaam googi ca xapaaba mhm. ni mu jaabante woon ci diggante bi yonente bi alayhi salaam la jaabante foofu diggante yàlla ak yonente bi alayhi salaam wajjahtu wajhi lahu shukran lahu abadan is annahu min yadi shaytaani axrajani allahu akbar sëñ bi nee na yàllaa ne ma pangate ci loxoy seytaane ba duma laal maa ngi sant yàlla bi ma génnee ci loxo loxoy seytaane ba seytaane mi wër ñëpp di wër ñëpp jotul ci moom ma ne sëñ Tuubaa nee maa ngi sant is annahu min yadi shaytaani axrajani maa ngi koy sant wajjahtu wajhi lahu shukran maa ngi sant yàlla waxtu wu ne cant gu sax lu tax is annahu min yadi shaytaani axrajahu axrajani ndax moo ma génn ci loxoy seytaane waaye wajatu ci rabbi la sharika lahu maa al azimati fil idaani bil hasan maa ngi jëmale yàlla sama borom boole kooku dogu ak gañaayu nag nan nag la jëmee ci borom subhanahu wa taala ak doxin wajatu ci rabbin jalla al masal bi xidmatin libni abdallahi di sunan maa ngi jëmale sama bopp ci yàlla borom bi subhanahu wa taala ci wan yoon nag bi xidmatin libni abdallahi di sunan maa ngi jëm ci liggéeyal yonente bi alayhi salatu wasalaam bi xidmatin libna abdallahi jaaliba ma noxta wa daafixa ma noxta min al mehan yonente bi salaa salaam moom nga xam ne mooy doomi abdullahi ji nga xam ne mooy bijji mooy bijji ay xéewal ki yiw mooy jañ lépp loo xam ne mooy ay lor fa kullu man qassahu lbaari bi xidmatihi fala yulaaqi siwal bushra walam yahud allahu akbar Sëriñ Tuubaa nee na cay ku yàlla dimbale oh. ba jagleel la ngay liggéeyal waajooju di Moustapha doo dajeeg ci adduna ak ëllëg lu dul am mbégte mu sax dàkk moom ngay dajeel waaye amul leneen looy dajal mhm. wa man takun bi rasulullah xidmatuhu musaahiba siddiq wal ixlaasi wal xasan falaa yaqaafu wala yarjul wara zamana idil wiqaayatu tuxnihi anil kinami ku jug di liggéeyal sama waa jooju di mu safa mhm. boole ca dëggal boole ca sellal nee na jërut ngay am looy ragal ndax kaare nga ak yàlla mooy bàyyi koo wet gu ne jëm si ci yow ci liggéey boobu nga doon liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne kon nag aw ma genn bëgg man aw ma jenn yitte lu dul roy kooku di Mustafa laysat liyal yawma xaajaatun u ammiluha si waqti faayika xafwal xalbi wal badan bëgguma dara aw ma genn bëgg aw ma genn jublu mooy roy la yow Mustafa sallallahu alayhi wa sallam moo tax da koo roy nag ci tànk ak tànk saa kaxtafal muxtafa xataa mhm. ka annahuma lawlaa nubuwat sa saw baani xat na sa oh. dox yi na may yow sa dox yi wax yi na may yow sa wax yi jëf yi na may yow sa jëf ngirëm nga teg sa tànk ba juuyoowul ak kooku di yonente bi alayhi salaatu salaam ku wax lii sëñ bay jaxate sëñ bay jaxate nee na ko yow dox yi na may yow sa dox yi dox yi nu yonente bi waaw wax yi na yow sa wax yi wax yi nu yonente bi waaw jëf yi na may yow sa jëf yi yi nu yonente bi ngirëm nga teg sa tànk ba oh. am na keneen ku ñuy wax sëñ Mame Balla dooy Mamour Diarra borom saam la wax na ko lakinnahu warisal muxtaara fi amalin wa fi maqaalin wa fi xulqin wa fi siyari allahu akbar dafa donn Moustapha sallallahu alayhi wa sallam te cofee la ma ko may royu dara ndax mbëggeelam ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg gi bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu rek moo ko may lépp loo xam ne moom lay wut di ko wut xam nga waxal na boppam ne nabiyun rasulun xad na fa kulla baatilin fa matxu nabii lil fa matxu nabii lillahi lil yowma manajib tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dàq na lépp lu duy neen bul ma laaj luy sama yoon bul ma laaj nooy doxee tagg Moustapha mooy sama yoon man xaadimu rasul chakartuhu isxassani bi xidmatin maaxisani mhm. saa xidmatin fi alani lahu wa fakka walla mi maa ngi sant yàlla man xaadimu rasul lu tax la ñëpp bëggoon la ma jox mooy bëgg a liggéey rasulaay mu jagleel ma ko ba man may xaadimu rasul nee na sant naa ci yàlla borom bi subhanahu wa taala mhm. waaye nag wajahtu kulli lil warudi samat saa xidmatin lil Moustapha Muhammad alhamdu wa shukru maa lillahi ala nabii waladi abdallahi dañuy sant yàlla di ko gërëm ca doomi Moustapha ja ka nga xam ne mooy doomi Abdullahi di Moustapha sallallahu alayhi ñunu yàlla xéewalee ñunu yàlla xéewal yonent bi moo tax mu ne lam yabdu misla Moustapha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sirran wa jahran fil baraya saman mm. lam yabdu mës la feeñ te du feeñ misla Moustapha ku mel ni rasulullah sherran wa jahran du ku ni yelu na xamee su ko du ko feeñ ko ne fang fil baraaya ci mindee fi ku mel ni rasulullah madda lana al islam wal kufra maa wa bin nasihatin li kullin samaha mhm. moo nu wamatal islam wamatal ñu jub laaye biiru ñu wax ju nag yaqulu bi dahiri la baatini man ataahu li lay fi ku wammatu topp ca moom mu yoon la ca jub ga biir ak biti ak lépp lu mën a doon waaye li tax ma set man xaadim rasul aw ma bakkaar aw ma gàkk aw ma taas aw ma tilim xidmatuhu oh. anil uyuba ashabat wala istiqamata wa safan wa habal yonent bi liggéey gi ma ko liggéey la moom fóot ba ma set picc serafat sali minal afat aw benn gàkk zéro faw ma benn xam nga saabu ban lan ma soccee biñ ma fóote hmm. mooy xidmatuhu liggéey rasulullah anil uyuba ashabat moo tax aw ma ayib du ma iñaan du bañ nit du ma fayantoo du ma mer du ma gëdde du ma xuloo duma werante lu waaye def neex na ndax xidmatuhu anil uyuba ashabat xaadimu rasul mbégtem safar ak télévision Futurs Médias kon ba suba ak jàmm ba suba ak jàmm ma tàmbaleeti te